waaw daal léegi dama bëgg ni champ de vision bu gën a yaatu la lay may. Arrière, ñoo leen grand. C'est bon. Ah,

sëñ bi alors wéy ma da ngeen ñuy may yoon da ngeen ñuy may yoon da ngeen ñuy may yoon def leen nii kaay da ngeen ñuy may yoon mooy papa yi Aliou. allo. Fatou Mbaye daa dugg si. ci sunu doom ñu kontaan ci moom te neexul bay bi nag ñaari def ko mbaax tekk na waaye nag jaara boo jaaree foofu foofu tere bay naa yi ci baax na am na macha allah waaw day toog jaara day xaritam di doomam tubaarkàlla macha allah succès na bu la neexoon nga ni sa baay yii li ma am ci relation amu ko fi ma teg sama tànk tegu leen fa li ma ci opportunité amu leen ko waaye da ngaa jël loola lépp daxañ fële respecté cër jox yar wan leen bëgg leen ñu gënal la ne nga boole ko nag di déglu seen i moo tax bi njaxat doonee sa baay tey ci uuf la maye na rusul yàlla sëy bii yàlla ko yàlla barkeel sa bii nee na kontaan na ci yow nee na defoo lu ko um looy dugg di nga ci waxtaan ak jaxate di sant ñëpp nee na premièrement di sant baayam di ko ñaanal yal na yàlla dolli leeram nee na di ñaanal yaayam yal na guddal fanam te bàyyi koog ñoom wëlbati ko nag di sant magam ji galas jaxas kañ lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal di la xamal ni tabarkalla macha allah du ñu dëggoon lambi mag ju baax bu sappee ndëndam kenn ko si. wëlbati ko nag santaale booleem xarit bu ndax ni ko jàppee noonu la ko xarit yëpp jàppee jaxat nee mi ngi lay sant di sant say xarit di sant say am di jàmm nee na wëlbati ko yii nga xamante ni ñoo àndoon ak baayam nee na ba ñu gisatul seen baay ñii ànd ak ci baayam ak ay magi baay rek ci baayam noo xam ne ak juróom yëpp bi ko ñaareel nag di ñii mu may soxna ndax da ngeen a kër yu bari romb dëkk yu bari ñëw ba ci ñoom seen doom bëgg tabarkalla ngeen ñaan si ko ci farata yàlla sunnas Muhammad ñu may ko noonu kon loolu ku la ko defal mënu laa fay ndax jamono ji nag lu jafe la ndax dund nañu doom ma ak sa ku di yàlla mu jël nga yar doom fan ko war a yare mu mel na mu war a mel nga wëlbati ko mayu ko santal yàlla te loolu nga am tey kon jaxatee ne mi ngi santaat yàlla bu baax di gërëm ñëpp rax ca doole di gërëm dëkkandoo yi rawatina waa jàmm gën kii ñu dëkkal ci mbaax ak teraanga ak dëkkin wu rafet ak jàppoo boo xamante ni sax dëkk tabarkàlla macha ci loolu ñooy mi ngi santaat ñëpp mi ngi gërëmaat ñëpp di gërëm baayam bii nee na bëggul woon a wax ci kannaawu baayam bi mu yëkkatee kàddu loolu tax mu yóbbante mële nga xam ne tabarkalla sunu télévision fi mu ne ak këram soriwul nga doon artiste ñëpp yàlla boole la jaar ngeen xamante bu yàgg bokk nga te artistes ñu nommé ñu gën a am yar ci Sénégal tey succès buzz taw la yal na yàlla doon sa nee na di santaat nag bu baax yaayu jaaram mu baax mii nga xamante tabarkalla macha allah moo mu ñëw garas di mari Camara nee na mani Camara tabarkalla lii war na koo mu yam garas jàppale garas ci yare doomam jàppale na garas ci taxawaayu doomam te tabarkalla macha allah ànd naag moom ci góor kon jaara doom ju jigéen jàngaaniwul ndey may royu kaayam kii sa bay def noonu nga jaar respecté sa baay ba nit gis la bëgg la dem nga Dakar wax naa la ko léegi waaye succès nag dabu la. koyoo sa bopp léeg-léeg ma dajeeg tey yow dans les a ngi sa sa yaay di ko sant di ko ñaanal yàlla guddal fanam lépp lu ñu seet sa sëy bii ci bànneex ak teraanga ak tawféex ak njaboot gu barkeel yal na ko yàlla def ci barkeel boobu Nabil Moustapha ma ci am Madina ñi ngi ñëpp di gërëm ñëpp ma jox sama baay bu yëkkati kàddoom bu ko defee ñu soog a ñaan papa kàddu gis nañu ay jullit nee gis nañu nit ñu baax nee na seen wax nag du sori. ñuy ñaan sëy bii yal na ko yàlla barkeel nee na yal na ci yàlla def njaboot njaboot ju góor ak njaboot ju jigéen nee na ñoo ngi sant suñu borom di sant it waa kàcce bi yëpp di sant imam bi nee na ñuy wax ci imam ah xew boo am boo imaam ñaanal yàlla bu dal seen bal barkeel leen nee na loolu la amoon ci lu muy wax nee na jërë ngeen jëf li ma dalal honorable mbooloo mi dafa am ko yegg amul amul luñ ci luñ ci commentaire ku ne xam naa digganteem ak Galas Mbaye li tax li tax ñu daloo la on a tous fait la lu xew jàmm ngeen jóg nga bu dee bànneex teew nga bu dee nakar tabarkalla macha allah teew nga.